mbokki Sénégal mbokki amateurs yi mbokki région de Fatick spécial ndéwénal la leen fan si club bu Kër Ndour andil le surlendemain de la tabaski muy grand gala de lutte sans frappe di spécial sargal monsieur le ministre Matar Ba ministre des sports maire de la commune de Fatick fan si club bu Kër Ndour lan ngeen nar ñu ne làmb ju rëy kan ngeen ko dippe ñu ne ki sportu Sénégal yépp di tiitaroo ki commune bu Fatick bi di tiitaroo ax lu làmb di ko sagoo muy le ministre Matar Ba moom la ñu fas yéene sargal daal di cay teg 3 millions de francs CFA muy bés bu rëy ñu jàpp ko ci jaxaaw siin daal cay toftal animation bu amul fenn ndax amateurs yi xam nañu ne saa yu mbéy ak lum feggoo ak Momo Ngom jooju faaw mu wàcc faw mu ala daw me faw mu yëngu ba yëngu fu dara nekkul ñu am ci ay invité d'honneur ku ci mel ni Abdoulaye nduur ministre conseiller à la présidence ku ci mel ni Badara Ndiaye maire de la commune de caari njal gi ku ci mel ni Ismaïla Sène responsable politique ci Ndiabel Thierno Silla maire de la commune de jaxaw Sine ñu fa yéene cee décoré nag seen mag seen xarit seen grand frère bi taaw kër gi te dara ñaawul muy monsieur Babacar Ndour di jëmm ju bëgg mbokk amateur yi fan sa club moo leen di woo di woo sargal monsieur le ministre Matar Ba muy le surlendemain de la tabaski fii ci jaxaw sin mise ba de francs CFA mbokk yi ñuy teewlu à chaque fois ci luttetv.com ñu ngi leen dundi bu baax ku ci nekk ci turam ak ci santam tey mardi 5 juillet 2022 ñu ñëwaat ak yéen ci yéen kaay ma caand ak Boucar Ndour maa ngi lay siyaare Omar maa ngi lay fay di la nuyu di lay ziar du mbokk Sénégal rawatina mbokk internet TV ni nga ko waxee rek tey nekk mardi 5 juillet 2022 Omar ñu ñëw ak kaay ñu ubbee ko ak journal bu suñu làmb mu daal di ñëw ak ñun indi ñu combat bi war a am le 7 août diggante Gris Bordeaux ak Balla Gaye numéro 2 ki ci yëkkati ay kàddoom di ci àdduna mooy Amadou Kati Diop nekk léegi ci fas Ndakaaru ci fàttali amatukati Kati Diop ngémm na Gris Bordeaux mu bëre ak Yaxya Diop Yékini non ngémm na Yékini mu bëre ak Gris Bordeaux ngémm na Yékini mu bëre ak Balla Gaye numéro 2 tey mu war a ñëw ngémm Gris Bordeaux mu ñëw jàkkaarloo ak Balla Gaye 2 ay kàddoom nag bokk na ci mantalement Balla Gaye 2 mooy gën a pare waaye nag ñoom gagné rek bëgg te gagné rek ñu yaakaar gagné rek la ñu bëgg waaye nag dafa mel ni nag journal bi dafa ñëw rek nga xamante ne moo moom Amadou Kat bi nii ngémb na Yaya Diop Yékini dem Balla daan ko Omar dafa mel ni nag tey zone moo tax journal bi di sampaat laaj diggante Amadou Kat ak Balla ñu war a gisewaat wala retrouver waat le 7 août diggante Gris Bordeaux ak Balla Gaye moo tax journal bi di sampaat laaj ba waaye nag nee na nekkul revanche par procuration amul waaye nag nee na Balla Gaye 2 dina am tuuti avantage rek mentalement maanaam psychologie si côté euh, jàpp ne daal Balla Gaye mën na am lu mu ci avantage yee Gris Bordeaux waaye nag nee na ay bëgg-bëggam yëpp yëpp yëpp mooy maanaam rek ñu gagné parce que moom nee ku ko xam-xam ne gañekat la te ñeneen ñu ngi liggéey ngir am ndam. yaakaar naa ne fi FIFA toll nii jamono sax. exploit yi mi ngi jëm ci kanam résultat yi ngi nekk ay résultat yoo xamante ne mi ngi neex yi nit ñi itamit ñu ngi yor seen ay kàddu ak seen ay làmmiñ di wax ni Fass fi mu toll nii résultat yi baax na. Fass résultat yi ñu ngi commencé baax gis nañ ne bañ defee fusion duñ ne Fass sax mais Fass Ndakaaru la wax bañ defee fusion ba pare gis nañ ne daal am na ay avantages yoo xamante ni tey ñoo ngi ko si am Omar. yaakaar naa ni am na solo bu ko ndul leneen la nga xamante ne wax na ko ci combat bi nee na combat bi combat la boo xamante ne combat bu ñor écurie la. waaw combat bu ñor écurie bi la dafa dafa war ñor écurie bi nag parce que Balla Gaye yaakaar naa ne tey moom ak Gris Bordeaux bëri woon waaye nga xamante ni moom maanaam tey ay série de victoire kon moo tax combat bi am importance si ñoom yaakaar naa ne làmb la joo xamante ne nii Boucar bu melee ni comme bu njëkk ba moom kenn du mer kenn du yëkkati benn kàddu boo xamante ne kàddu bu safaanu la di ko jëmale si ñaari mbëri waaw loolu nag ñu ngi koy xaar na si ñaari mbëri nag ñu ñëw livre combat rek ñëw àndi bi war a entraîner àndi fu la ak fayda ba kenn ba kenn du la nga xamante ne ni tamit gis nañu ko ci journal bu suñu làmb ci diggante moo Lo ak Ama Baldé ginnaaw bi ci ay blessure amee ñu ne dañu koy dàq ba jëmmi jamono waaye nag li jaaxal nit ñi jaaxal waa suñu làmb mooy noppi gi nga xamante ne ni le promoteur Luc Nicolaï noppi na ko boobu ba léegi. noppi na ko boobu ba léegi noppi na noppi la nag boo xamante ni tey mën nañu amandi yaakaar ne euh, Omar euh, euh, noppi liggéey la.

ut ay solution ci nu mu gën a gaawee parce que combat bi boo xamante ne ñaari mbër yëpp combat bi daf leen a mujj ëpp loxo. a mujj ëpp loxo Omar muy staff yi yeeg ba si promoteur bi ba si Sénégal yëpp parce que combat li si laxasu moo bëri Omar. quoi qu'on li si laxasu dafa bëri parce que am na ñu bëgg combat bi am na ñu bëggul combat bi. am na ñuy raante di def lépp ngir combat am am na ñuy def loolu tamit ngir combat du am peut looloo méttil affaire yu Omar waaye nag ko sumb ko a tëgg boobule combat. ci beneen wet bi tamit ñu ngi ñuy xamal ne Ama Baldé ginnaaw bi mu ne bëgg naa bëri ak Bombardier manageru Bombardier di Aline Gueye yëkk ci ay kàddoom nee na Ama Baldé xelam ak xalaatam mayu ko sax mu bëri ak Bombardier xelam xalaatam mayu ko mu bëri ak Bombardier loolu waxi ki nga xamante ni rek moo di Aline Gueye nekk manageru B52 Ah, euh, borom mbuur waaye nag ak lu mën a xew rek combat la boo xamante ni te gis nañ ne amateur yi bëgg nañ ko am na sax doon sax am na sax ay promoteur yu ko doon démarché pour tëggu ko kon yaakaar na ne euh, Aline Gueye xam naa ne day day day day day day baab rek li ñu ko mën a waxee rek ah, ama pour mu jël combat bi parce que xam naa ne ñoom ñaar ñëpp Omar bëggante nañ keneen ka nga xamante ni xale la dix combat dix victoire Mor Kankang war a ñëw nag pour bëre ak Alioune Sèye junior mu nekk onzième combat le vingt-quatre juillet nee na nag mooy onzième victoire am rek. nee moo nar a nekk onzième victoire am si dab daan la jógee moom Mor Kang Kang bi nekk phénomène boo xamante ne tamit phénomène bu bees la bu bëri mu neex waaye tamit bu feccee mu ambiance mu neex diggante mag na ak Alioune Seye junior incha allah le 24 juillet nee bëgg-bëggam yëpp mooy maanaam tey amat beneen ndam. Tidiane Faye combat ak Kewel ginnaaw bi mu jeexee par match Maxime Bergane nee nag dinañ dugal recours parce que Kewel dafa def 4 appui. Maxime Bergane nee na dugal recours parce que Kewel dafa def 4 appui Maxime Bergane mi nga xamante ne mooy manager euh, wala wala moo jiite rek écurie Langsar nee na moom Kewel si biir combat bi def na 4 appui parce que gis nañ ne combat bi muy jeex ay avertissement la jeexee ñu disqualifié ñaari mbër yëpp mu nekkoon match nul waaye Max nee na dinañ déposer Thiaka Faye wane na boppam bu baax a baax ci gala bi nga xamante moom la ñu sargale woon le roi des arènes Modou Lo Iba Mar Diop waaw Iba Mar dafa mel ni nag Thiaka Faye nag gëj na lool lool lool moo tax journal bi jàpp ne Thiaka Faye illumine Iba cinq ans après parce dafa mel ni gëj na fa jël làmb nag waaye dimanche passé ne mu jël fa làmb boo xamante ni tey euh, gisuñu fa nag yenn champion yi gars yi doon xaarandi yëpp xaw ma gars yi dawante seen biir xaw ma nu mu demee noonu daal waaye ak lu mën a xew daal Thiaka Faye jël na làmb jooju nga xamante Lo drapeau Modou waaye keneen ka nga xamante ne mu ngi ci keppaaru Modou Lo di Gora soq tey incha allahu rabbi ci mardi bi dina jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi waxtaan ak ñoom. Gora Sock face à la presse sa 17 sa mardi 17h incha allahu rabbi kon moom Gora Sock mi fas ne rek dafa. presse bi jàkkaarloo waxtaan ak ñoom si li nga xamante ni rek tey Omar mooy waajtaayu combat bi diggante mag Fils de Balla parce que gis nañ ne combat boobu tamit xam naa ne mois d'août la te comme que dañ ko waajaloon. mu yàqu war nañ ko waajalaat ak doole. Matar Ba itamit ràññee nañu ko ci délégation Pape Abdou Fall ginnaaw bi ñu ko tuddee lambe S arène nationale waaye nag la xewoon na ci bàyyi xel bu baax a baax a baax. waaw coupure courant bi. Pape Abdou Fall lañ tuddee woon lamb coupé du courant nag tey Omar li ñu mën a waxee rek nekkul si si nekkul si ressortu ministre bi waaye nag su fekkee ne tamit euh, euh, arène nationale bi am na groupe électrogène bu fa nekk boo xamante tey pour yooyu la yaakaar naa ne si loolu la ñu mën a mën a taxaw def si focus parce que coupé du courant moom kenn mënut a wax ne courant du coupé Sénégal waaye courant bu coupé ñu def trouver solution solution bi am nag mooy que ne am na groupe ba fa nekk groupe a saytu defar la disposition des organisateurs parce que da ngay gis nag parce que il paraît que euh, la fois passée coupé woon na waaye ki yore woon mm, bi da doon sàkku si gars yi ñu jox ko xaalis pour mu taal groupe bi parce que nee na groupe bi amatoon essence wala foog gars yi dem force wut essence yu demee noonu yaakaar naa lu ñu war a mën a teel a waxtaanee la ñiy organiser ñëw vérifier groupe bi bu dee amul essence ñu dënd essence lu leen doy def si en attendant nga xam ne bu courant coupé ñoom dinañ ko mën a taal su fekkee nag ñoom jëndoon loolu daal la ñu mën a beneen solution yi tamit mën naa am parce que boo demee ba luwee stade moom loolu lépp mën naa bokk ci li nga xamante ni moom mooy ci location bi ñu xool naka la ñu koy saytoo mu gën a baax record daal di ñëw ak ñun ci làmb ba tey indi ñu Balla Gaye numéro 2 ku ne gis na ni combat bu mujj léppam dafa fësoon ci réseaux sociaux yi combat bi nag loolu lépp bokk na ci loo xamante ni mi ngi koy xeex xam nga ne Gris Bordeaux doo gis sama benn vidéo ci réseaux sociaux yi stade nga may gisee ma si méngo nee na Gris Bordeaux stade nga may gisee ma sumeeku wala bu dul Gris sax sax peut yi wala ay supporters Omar yaay daal ak lu mën a xew nee na euh, moom dootul affiché wu nga xamante ni tey moo ay entraînement am ci réseaux sociaux yi parce que gis nañ ne combat bi wa bu mujj lépp da ko doon publier am a xaw rek mooy maanaam liggéey ko def mu jaar yoon rek ka nga publier ko ka nga ko publier na entraîné andi andi état andi andi andi état de forme physique boobu boo xamante ni tey nit ñi dinañ si am satisfaction parce que loolu la ñi di xaar si moom def na ay preuve am nag am tey maanaam tey bu bëggee dina andi euh, loo xamante ni tey heure bu sumee ko nit ñi dinañ xam ne Balla mii ni liggéey na parce que tamit lamb moom amat bu la kenn nax liggéey la rek boo liggéeyee mu feeñ moom kay nee na école am rek doy na ko comme ni mu ko comme école am la nekk ba suñu borom def ko ni mu ko def école am lay continuer di entraîner. nee na doy na ko fa lay continuer di entraîner parce que da ngeen gis vidéo bi Lac 2 defoon ne dafa doon di doon sàkku pour ñoom ñaar ñu ñëw bokk liggéey waaye ko daal xamal na ko euh, mu dem si école parce que école am doy na ko parce que fa la waajee fa la daan waajee euh, lay continuer di fa waajale ay entraînement. tontu boobu dafa war a nekk tontu boo xamante ne nit ñi waruñu ko jëlee ci beneen sens dañoo war a jël tontu woowu xam ne tontu la rek entre copain ak copain. laaj nañ ko tamit ci mystique ndax am na importance nee na am na importance waaye ku entraîné wul mystique bu mun laa jëriñ. entraînement bi da si am solo Omar mooy li ma doon wax sànq rek entraînement bi dafa am solo ci mbër. tey Omar boo fekkee na tey dañ la yéenoon gàllaaj yi si àdduna bi yëpp Omar paa yëpp ngemb la tey te amoo doole amoo kattan koo dajal dalay fël waaye nag tey boo entraîné andi doole andi jom mystique bi dalay gunge mystique moom kenn mënu ta wax kenn mënu ko génne dindi tamit ci làmb parce que gis nañ ne day gën a yokku day gën a am doole ci làmb waaye nag yaakaar lool lool waaye tamit jom beeg fula beeg fayda bi ah, kese moom bu desoon ci làmb ci kese kese kese mu waaw mooy li ma lay wax rek mooy maanaam mystique bi day ànd ak doole waaye tamit day ànd ak jom fula hmm. ak fayda. comme ni ko suñu làmb defee noonu la ko record defee ne ñu caaka fay ñëw na wane na boppam waaye nag Serigne Ndiaye ñëwu fa Franc ñëwu fa. Dourou Sané ñëw fa. waaw moo tax journal bi jàpp bind na Thiaka Faye en profite en absence de Serigne Ndiaye Dourou Sané euh, euh, Franc ñi nga xamante bokk nañ si ñu gën a tey si si lutte simple bi ginnaaw bi ñu ñëwul nag amateur sax am na ñu doon naan gars yi est-ce que nekkul dañ dawante seen biir général Malick général tamit gars yi gën nañ ko gis loolu Omar depuis loolu yi gisuñu ko xamuñ si lu mu nekk euh, ñoom ëbbali champion yu bëri daal gis na daal dañoo raar waaye a xew rek bi daal bi mu nekkee mbër yëpp fii lañ nekkoon naan na làmb ji ubbi na làmb ji ubbi làmb ji ubbi mbëri di calculer fii laay dem ak fii du ma dem fii nii yaakaar naan tamit Omar daf si am solo lool lool lool mbalka maak démb jël naa ko interview wax na si lu am solo ni ma bëggoon mbëri nañ dem mbëri ay xale lañ ni ko dimle waxee woon rek fii mbër bu si bëgg am alal di nga dem mbëri ji waaye nekk mbër simple buñ tëggee tey nga bëri suba doo bëri di calculer di waaj mbalka maak na ma dem naa si ma ne làmb ndangaan boo demee di nga damm xanaa loolu garaaw wax ne boo demee doo ko jël de boo di nga di nga damm te dafa dem bëri jël làmb ji dem département sëriñ bi nag donte woolu na ko xam na ko mais des fois nga gis des fois doo gis loolu day am kon mbër bi yaay am sa fula ak sa fayda bopp dem mbër ji yaakaar naa da si am solo di invité waat nag ñëpp Omar tabaski ba ba mu am deux jours fële sa jaxaaw sin muy drapeau sargal Matar Ba doomu jaxaaw sin la fan si a bu collectif yi teg fa mise 3 millions invité d'honneur nag suñu papa Abdoulaye Ndour nekk ministre conseil à la présidence Badara Ndiaye maire de régisseur des bourses waaye tamit Ismaïla Sène nekk suñu grand frère nekk euh, responsable politique sa commune du Njëbel ah euh, Thierno si la tamit si invité yi la bokk mooy maire Diakhou di invité nag monde lamb yëpp Omar di la invité. man kay damay ñëw. maa ngi naan maa ngi lay bëggee. di leen jox dig daje mbokk yi ba suba ak jàmm incha allahu rabbi jërë ngeen jëf. mbokki Sénégal mbokki amateurs yi mbokki région de Fatick spécial ndéwénal la leen fans club bu Kër Ndour andil le surlendemain de la tabaski muy grand gala de lutte sans frappe di spécial sargal monsieur le ministre Matar Ba ministre des sports maire de la commune de Fatick fans club bu Kër Ndour lan ngeen nar ñu ne làmb ju rëy kan ngeen ko dippe ñu ne ki sportu Sénégal yépp di tiitaroo ki commune bu Fatick bi di tiitaroo ax lu làmb di ko sagoo muy le ministre Matar Ba moom la ñu fas yéenee sargal daal di cay teg 3 millions de francs CFA muy bés jàpp ko ci jaxaaw siin daal di cay toftal nag animation bu amul fenn ndax amateurs yi xam na nañu ne saa yu mbéy ak lum feggoo ak Momo Ngom lamb jooju faw mu wàcc faw mu ala daw me faaw mu yëngu ba yëngu fu dara nekkul ñu am ci ay invité d'honneur ku ci mel ni Abdoulaye nduur ministre conseil à la présidence ku ci mel ni Badara Ndiaye maire de la commune de njal gi ku ci mel ni Ismaïla Sène responsable politique ci Njabel Thierno Silla maire de la commune de Jaxaw Sine ñu fas yéene cee décorer nag seen mag seen xarit seen grand frère bi taaw kër gi te dara ñaawul muy monsieur Babacar Ndour Ndour di jëmm ju bëgg mbokk ñu ne bés baa ngoog mbokki amateur yi fan sa club bu Kër Ndour moo leen di woo di woo waa lamb di woo mbër yi ci spécial sargal monsieur le ministre Matar Ba muy le surlendemain de la tabaski fii ci jaxaw sin mise ba di 3 millions de francs CFA